maanaam ki nga xam ne mooy njiitu réew mi pour mu jàppale ndax bi ñuy wax situation yi pour huis clos moo taxoon huis bi comme jeex na léegi beneen procédure lay nekk te na ci waxtaan ak kilifa gi lu mu ci mën ko def ndax moom làmb moo ko fi nekkal te làmb a jóg. maanaam euh, instant bi taxawaayu CNG jamono ji si làmb ji ak par taxawaay bi wute na lool wax dëgg yàlla ku xam taxawaay bi ñaari kilifa yi xam ne wute na waaye comme dañoo nekk ci procédure waxtaan li gën mooy nañu daje pour toog waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaanee ñoom bu solution amee baax na bu solution amut ñun suñu position yaakaar naa ci la ñuy kon ne nekk rek. lu tax yéen bi ngeen déggee problème congé rek demoo a xamal ñu waxtaan mais dañu gis ne dañu génn rek wax dañuy gis non xam nga ñoom li ñuy def dañ ko programmé ba tey dañ ko programmé woon bu yàgg ñoom jàpp naa li def programmé woon nañ ko ndax dèjà tey bi ñu xëyee jox nañ ay nit ay promoteur date ba réglé seen ay combat kon yaakaar naa lu ñu woon kon ñun jëruñu woon ñuy dem foofu di wax ndax ñoom li ñu def kenn mënu leen ko tee def waaye nag ñun suñu position bi amit kenn mënuñoo tee kenn mënuñoo jëlee yéen est-ce que dugaloon ngeen seen i ci CNG bi. dañoo war a tase bu ñu war a tase incha allah comme niñ ko yëgee comme ni ngeen ko yëgee tey di ngeen yëgewaat noonu information bi incha rabbi buñ fa jógee ñun duñ tirisee liñ fa jëlee rek loolu la ñuy wax. non xam nga kii ku mu neex am nga droit joxe sa caution ndax libre nga mais nag am na ñoo xam ne am nañ droit ñoom ne tënku nañ ci kuréel duñ joxe seen caution te duñ ci de te duñ ci ànd ñooñu kuréel la mooy bi Pape Abdou Fall jiite ñun ñu nekk ci li ñu décidé mooy kenn du kenn du réguler sa combat kenn du joxe un million te waxtaanuñu ba pare te it mënuñoo joxe caution loolu moom ñun suñu ay principe la te yaakaar naa pare guñ pour jóge ji ñaari avancé jetti avancé jamono ji lëmbee na làmb ji noo ko gisee yow en tant que promoteur. bu fekkee bari yi nangu nañ ko promoteurs yi ko seq nangu nañ ko man jàpp naa ne problème amu ci bu fekkee mbër yi koy bëree nangu nañ promoteurs yi yéen tëgg nañ ko yaakaar naa lool gisuma ci problème en tout cas fexe ba bu ci am rek. jàpp nga ne dina jëmale làmb ji kanam. non man moom wax dëgg yàlla mbër mooy signé contrat contrat benn combat ngay bëre muy benn contrat mbër moo koy def yaakaar naa moom suñu contrat du àgg. mais boo téyee mbër bi tamit kaw mbër bi est-ce que duñ ne Fallou dafa soxor wala. non du cadre téye mbër bi wala kaw mbër bi xam nga lépp loo gis waxtaan la xam nga tey mënoo organiser benn événement bi ci biir benn événement ñëw dugaat ci biir mën naa citer événement bi nga xam ne ngay def wala mu kal ko solo te yooyu yaakaar naa ñun waruñu ko defante sax suñu biir jàpp naa daal loo xam te nii la mën naa ñu ngi koy def di ko bàyyi nii mais mën naa di coow ci ba tribunal na ci xaj wala leen xaj ndax tey am na promoteur yoo xam ba signé ñoom contrat dem si ñëwaat beneen contrat mën naa am difficulté yoo xamante ne nii maanaam day musli kon yaakaar naa képp koy defit na nga xool contrat bi nga xam ne moom nga ak lan moo ci tënk nga xam ne ni benn jafe-jafe du la